docteur Barnabé Gningue maa ngi lay nuyu. Eh, maa ngi si. yow sa xel dafa màcc ci santé publique euh, nga jiite tey euh, programme euh, national de lutte contre la tuberculose nekkoon nga itam médecin chef contrôle sanitaire aux frontières aériennes am na ñu mbégte mu rëy dalal la ci matinalu réew mi. jërë ngeen jëf bu baax a baax man tam am naa mbégte e, teew fii di waxtaan ak yéen. waaw docteur ñetti weer a ngi nii Sénégal di dund mbas moo xam ne euh, Covid 19 di coronavirus moo ko waral tey ban jàngat nga def ci ñi jàngoro ji lawe ak fi ñu toll ci xeex bi. E, xam naa liñ ci lim li ci jàngat sax e, bëri na waaye mën naa ci lim as te ci biir loolu ma njëkkee li nga xam ne. moo gën a euh, yomb gis moo gën a neex euh, gis mu lan euh, benn lañ tàmbale woon maanaam benn nii nit moo amoon jàngoro bi fii ci biir Sénégal biñ dawlee ñetti weer lu ëpp ñeenti junni nit am nañ ko biñ dawlee ñetti weer gox bu dugg tey gox bu tekki région moom laa bëgg a tekki foofu Sénégal am na fukki gox ak ñeent euh, gox bu nekk am na ci ñoo xam ne euh, doomu jàngoro bi nemmeeku nañ ko euh, ci seen yaram loolu mën naa wax ne ñun ñëpp ñu ko gisandoo beneen jàngat bi moo di ne seetlu nañu ni Sénégal booloo bokk jëmukaay mu jëm ci lépp loo xam ne mooy xeex euh, mooy xeex jàngoro bi xam nga bu ñu tuddee jàngoro rek ñëpp dañuy njëkk xalaat waa kër docteur am na sax ñoo xam ne ñu yaakaar ne waa kër docteur dong la waaye feebar bu mel ni mbas mi fàttali na nit ñi ne docteur am na pàcc boo xam ne moom moo ko féetewoo ci xeex jàngoro euh, waaye ki nga xam ne moo feebar itam. am na ci loo xam ne moo ko war a taxaw liggéey ko ki nga xam ne mooy mbokk mooy xarit euh, ki feebar moom tam am na euh, pàcc moo xam ne moom lañ koy sédd ci xeex feebar boobu moo tax fii ci mbir mbas mi ñu am li ñu oy ci tubaab comité national de gestion des épidémies muy kuréel bi nga xam ne waa kër docteur ñu nga fa waaye itam yeneen euh, technicien yeneen expert bokk ci yeneen ministère gouvernement du Sénégal Euh, ñu ngi bokk ci kuréel boobu euh, di dawal lépp loo xam ne mooy xeex euh, mbas mi fii ci Sénégal. Hmm. kon booloo boobu tey wax dëgg dañ ko rafetlu ndax may na réew mi mu am doole ci xeex bi nga xam ne moom lay xeex mbas mi. Hmm. beneen jàngat rek xam naa du ma mën a lim lépp beneen jàngat bi rek mooy itam ni ñu taxawalee xeex bi. defa ànd ak itam ak dox ànd ak sa jamono niñ doon defee bi ñu amee benn wala ñaari nit ñu feebar bi ñu demee ba gis ne nit ñi dañoo gën a bëri am na ay coppite yu ñu dugal ci ni ñuy xeexee mbas mi niñ doon dawalee xeex bi bi nga xam ne xëy na benn diiwaan Sénégal donc moo am jàngoro bi bu demee tey ba am fukki diiwaan ak ñeent itam da ngeen di gis ne dañuy ànd ak coppite yooyu am lu ñuy yokk am lu ñuy defar ci euh, gën a mën a xeex euh, mbas mi fii ci biir Sénégal. Mhm. docteur wax nga ko gis nañu ne jàngoro bi law na ba ci gox yu sore sori ci euh, réew mi donte ay ayubés ci ginnaaw demeewul woon noonu ci sa xalaat lan moo waral feebar bi lawee noonu ci diir bu gàtt bi. waaw ñun seetlu nañu ne toog nañu ñetti weer soog a fii ci lim nit ñi nga xam ne ci lim nii ci nit ñi nga xam ne am nañu doomu doomu doomu jàngoro bi euh, ba tax na euh, am nañu yaakaar ne euh, ni ministère de la santé di jiite liggéey bi nga xam ne moo jóge ci ndigalu président de la république wax dëgg fa yàlla dañ koy dañ koy dañ koy rafetlu di ci yokk suñu suñu cawarte bu fekkoon ne. dañoo bàyyi woon rek euh, lépp ni mu nekkoon balaa mbas mi di dugg si kon tey du ñu toog naan ay ñeenti junni nit ñoo am euh, jàngoro bi kon law na loolu moom kenn mënu koo kenn mënu ko miim waaye euh, lan moo tax ñi am feebar bi gën a bëri ak lan moo tax diiwaan yi nga xam ne feebar bi dugg na fa gën a bëri foofu itam ci mbirum xam-xamu ko docteur am na am nañ ci ay ay ay ay jàngat benn bi jiitu moo di ne doomu jàngoro bi ci biir yaramu nit lay nekk kon nit fu mu mën na dugg doomu jàngoro bi mën na faa dugg bu fekkee nit ki muy këram ak doomu jàngoro bi kon doomu jàngoro bi day des si biir kër googu bu fekkee nit ki dafa gën dem ci mbedd bi dafa dem gën génn dafa liggéeyi wala dafa dox dox yeneen soxla wala dafa dem xew képp foo xam ne nit dugg na fa rek doomu jàngoro bi mën na faa dugg kon tey euh, jàngaro boo xam ne day wàlle diggante nit ak nit a ah, su ko benn nit amee mu jegewoo mu saafonte ak ñeenti nit ak juróomi nit ak fukki nit ak ñaar fukki nit kon xel mën nangu que doomu jàngoro bi jóge na ci ki ko yoroon dugg ci yeneen nit yoo xam ne kooku jot naa jegewoo lool ak ñoom xel itam mën na nangu ne Euh, nit di génn di tukki di dox ay soxlaam fépp fu muy dem itam doomu jàngoro bi euh, ànd na ak ak moom kon ci gàttal feebar bi nu mu génnee euh, laal ay nit ñu gën a bëri ni mu génnee dem ci ay diiwaan yu bari liñ ci jiital mooy ci nit la nekk mm-hmm. kon nit lay àndal xanaa li ci mën a yokk moo di ne ñàkk xam mën na itam tax nit jot ci feebar bi ndax bu ñu nee moytu leen lii ak léeg-léeg moytu leen di nuyoo joxande loxo moytu leen di sëqat euh, te muur leen seen gémmiñ wala di tisooli leen euh, seen gémmiñ seen bakkan bu nit deful loolu ndax xamu ko mën na jot ci feebar bi mën na lawal sax feebar bi bu fekkee moom moo amoon doomu jàngoro bi. Hmm. waaye bu xam na loolu te topp ko moom mën na am mën na jot ci feebar bi moom itam mën na. tas feebar bi euh, fépp foo xam ne moom nit kooku jot na faa jot na faa dem. Hmm. docteur ñu daal di ubbi prox ndool wax naa ko sànq yaa jiite programme national de lutte contre la tuberculose muy feebaru sëqat suusu nga xam ni bari na ñu mu laal ci Sénégal boobule feebar bu fekkante ak coronavirus ña koy amee ndax euh, forcément dañuy doon ay cas grave mooy ne mën na leen a yóbbu ñu sonn loolu ba euh, soxla dugg réanimation. coronavirus ak tuberculose. mën naa wax ne dañoo euh, euh, dañoo bokk xam nga euh, sa xarit noon sa noon la. Mm-hmm. Covid 19 xaritu tuberculose la. Mm-hmm. kon ñoom ñaar ay noonu nit lu ñu. bu fekkee nag ñaari noonu lañoo ànd songu benn yaramu nit. day mel dañ ko dañ koo sotoo mm-hmm. euh, ñu ne ñett du xeex te ñaar mën kenn mm-hmm. bu fekkee ne tuberculose dong day song nit feebar euh, euh, def ci moom feebar covid 19 moom kese day dugg ci nit def ci moom feebar xel mën na nangu ne tuberculose ak covid 19 buñ dajee ci benn yaram dañ koy gën a lor rawatina nag rawatina mandarga yi feeñal tuberculose ak mandarga yi feebar lii yiy lale euh, liy wane euh, Covid 19 dañoo niroo. Hmm. bu fekkee nit ki day soog a am benn ci ñaari jàngoro yooyu. mu di lan tey nit ki mën na am yaram bu tàng di sëqët di am jafe-jafe nooyi mu yaakaar ne tuberculose la fekk Covid 19 la. wala mu yaakaar ne Covid 19 la fekk tuberculose la. bi gën a raw nag bi ci gën a yées mooy. fekk ñaari feebar yi la amandoo kon porondol boobu nga ubbi man sax euh, dama koy dama koy rafetlu mm-hmm. pour wax nit ñi ne Covid 19 ak tuberculose buñ duggee ci nit fiñ koy gën a loree mooy dañuy yàq xëtër bi nga xam ne moo tax nit mën di noyyi mm-hmm. mën di am jàmm moo tax képp ku ñaaw njort ne mandarga euh, bu jëm ci yaram bu tàng euh, sëqat euh, jafe-jafe noyyi ak yeneen ñuy yi ñun ci tuberculose di ko lim ci Covid 19 képp koo xam ne jot ngaa seetlu mandarga ci yow ci sa xarit ci sa mbokk nañ def lu gën a gaaw dem ci kër bu leen gën a jege ñu mën a ko seen yaram xool ban feebar lañu am ak ban faj. moo war ci feebar boobu ndax yaram yooyu mën a amaat wér gu yaram mhm. mën a dellu si ci ci ci jàmm covid 19 ak biir loolu baaxuñu mhm. euh, boo leen jëlee kenn kenn waaye gën nañoo bon bu fekkee ne dañoo duggandoo si benn nit ñëw daje ndax amagum ngeen justement ñoo xam ne ñaari feebar yooyu dañoo daje ci ñoom ak itam euh, nan la seen euh, wér yaram demee woon bu dee am na waaw am nañ ko waaye ñu sant yàlla bu baax ci ñi nga xam ne jot nañu na nemeeku yëpp kër docteur Euh, benn benn nit moo amagum tuberculose ak Covid 19 ñu def ko diagnostic damay incité la moo tax ma naan ñu def diagnostic waxuma ñi nga xam ne dañoo feebar toog seen kër. Mm-hmm. waxuma ñi nga xam ne dañoo feebar euh, bañ a dem ko docteur déedéet mais ñi feebar te docteur gis leen amagum nañu kenn koo xam ne am na ñaari feebar yi ñu ngi sant yàlla nag ndaxte. jamono bi ñu ñemee ko Covid 19 moom fekk moom amoon na tuberculose bu yàgg amoon na ko ay weeri weer. Mhm. Euh, yàlla def nag bi mu amee Covid 19 ñu teel koo nemmeeku ba tax aussi euh, faj bi teel na ci moom euh, te fi ñu toll nii agum ñu ngi am yaakaar bu baax a baax ne Covid bi sax si boppam wàccee na bu baax ci yaramam tuberculose bi nag. ajam mooy gën a yàgg ndax fajum tuberculose mën na dem euh, ba lu lu lu jege euh, ñaari at euh, léeg-léeg. Mm-hmm. moo tax fajum tuberculose mooy gën a yàgg waaye nag fu mu toll nii ci biir wér-gu-yaramam ab tan lañ gis si moom te tan boobu moo ñu may yaakaar ngir ñu wéy di ñaan mu gën a. gaaw a tane. bu soobee mhm, yàlla. Mhm. ñu daal di tëj prox ndol boobu docteur nga wax ci euh, pic bi nga xam ne ministre de la santé wax na ci alxamis ji ne atteindre nañ ko ñu bëri nag am ci xel ñaar ñu buggoon nga wax ñu ci lan la ñu mun a sukkandiku euh, pour euh, jàpp ne weesu nañu li gën a metti ci mbas mi. monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale su waxee ne yegg nañ ci pic mi pic de la maladie maa ngi. ñaan sénégalais yi ñu xam ne loolu sax mooy ne nañu gën a xeex feebar bi atteindre le pic de la maladie maanaam fi mu gën a kawee dafa lool ak feebar bi jeex na te loo te en te en réalité euh, ministre de la santé mu ngi euh, mu ngi wax pour ñu gën a tas ñu gën a euh, waxtaanee mbir moomu feebar bi kawe na. taxaw na ci njoolaayam kon ñu gën nañ koo gis gën naa fës nañ ko gën a xeex man loolu mooy suma premier message mooy suma premier njàngat ci li nga xam ne monsieur le de la santé et de l'action sociale euh, yeggee na ko waa Sénégal tey ma ngir ma dooleel ko maa ngi fàttali ne loolu ñuy wax ne euh, feebar bi tey taxaw na ak njoolaayam yëpp feeñ na ak njoolaayam yëpp dañ ko wéer ci lépp li nga xam ne ay experts yu bëri ci ay domaines yu bëri ñu ngi liggéey ba Covid 19 feeñee ba léegi biir Sénégal ngir xool ñun suñu réew nan la fi feebar bi euh, euh, taxawee ak nan la fi euh, nan la fi doxee loolu mooy tax tey li nga xam ne waa kër docteur ñu ngi koy liggéey dafa war a gën a dañoo war a yokk doole bi waaye itam. yokk doole waa kër docteur mu ngi bokk na ci man euh, mi nekk Sénégal muy waa Sénégal la wala gànnaar waaye feebar daf ma fee daf ma fee fekk lépp li nga xam ne ñoo ne boo ko defee doo am feebar bi war naa ci gën a taxaw maa ngi ko def waaye gën war naa ko gën a def tey ñu ne ma boo amee mandarga bi ak mandarga bi demal ko docteur wala wooteel Euh, numéro bi nga xam ne da ngay woote doo fay dara muy 800 00 50 50 ñu ñu am ay laaj yu ñuy laaj itam mën la euh, won fi nga war a dem ngir ñu mën laa nemmeeku def diagnostic ak ñu mën la faj tey laa ci war a gën a sawar tey laa ci war a gën a gaaw ndaxte li nga xam ne bu njëkk dañ ko doon jeex naan anam mu ngi nii du moom tey mu dem taxaw fàng ne maa ngi nii waaye waaye ki ngay xeex kay loo koy gën di gis sa gis-gis boobu lu muy gën di leer nga gën a xam ngay gën a xam ni na nga koy xeexe kon may ma rek ma waxaat ak doole ne ministre de la santé nee na on a atteint le de la maladie. Hmm. mooy feebar tey nag taxaw na wone na nan la toll. kon ñun nañu wut doole bu ëpp doole jàngoro bi ndax ñu mën koo daal. te yàlla ñu ko yàlla may. Mhm. amiin alors euh, docteur euh, ñu wax euh, ci woyofal gi bu dee mun nañu ko woowee noonu mesure d'assouplissement yi kilifa yi jël mu fekkante nag ak nit ñi mel ni ñu bàyyeeku ci niñ doon xeexee jàngoro ji ñaari mbir yooyu aussi bu fekkante te bàyyeeku bi dakkul ci lan la ñu mën a jëm. ma ma la ci li ngay wax ndax dañoo woyofal wala woyofaluñu woyofaluñu xam nga olof Njaay dafa ne. jamono suy dox da ngay dox ànd ak moom euh, comité national de gestion des épidémies bi nga xam ne euh, euh, ministère de la santé et sociale mooy mooy dajale ñëpp ci lépp li nga xam ne njiitu réew mi jox leen ko ci ndigal ngir ñu xeex feebar bi xeex boo xam ne ñu ngi ci ñaan ndam bu ñu demee ba gis ne feebar bi def na ñetti weer ñetti weer bi Sénégal feebar tey ay ñi lu ëpp ñeenti junni nit am nañu ko feebar bi tey mu ngi ci euh, fukk ak ñeenti diwaan yi nga xam ne moo moo moo ŋànk Sénégal kon dañuy naan benn ñaar ñett hmm. benn war ko docteur li ñuy liggéey liñ doon liggéey Dakar li doon liggéey Thiès léegi moo nañu liggéey ci fukki diwaan yi ak ñeent ñaar askan wi boo leen jëlee kenn par kenn. Hmm. ak boo leen jëlee ci njaboot wala nga jël leen ci ñi bokk euh, dëkk askan wi na gën a xeex jàngoro bi ci li nga xam ne mooy tax doo am jàngoro bi ñu koy ooyee moytu ak ci li nga xam ne aussi boo feebaree nga gën a gaaw a dem kër docteur ñu nemeeku la hmm. ndax boo xasee am feebar bu ñun ñu gis ko rek. am na nu ñuy liggéey ak yow nu ñuy waxtaane ak yow ba yow ñu mën laa faj te doo wàll keneen. Hmm. kon nguur gi mu def nii man damaa jàpp ne dafa ubbi buntu yi pour ñi doon xeex feebar bi gën a bëri ndax mbooloo mooy doole. Hmm. kon pour man euh, mesures yi nga ci jël loolu moo nekkoon li nga xam ne euh, bu ab mbir xewee da ngay njëkk xool nooy def ba. ñii ci lor du ñu bëri te itam mbir moomu bañ law ci biir euh, réew mi loolu nguur gi def na ko bi ñu koy def nag ñu bëri xëy na jot ñoo seetlu ne nguur gi mu def ay waxtaan mu doon euh, def ay ay wëccante xalaat ngir ñu gën a xam feebar bi nan lay duggee nan lañ koy moytoo ak boo feebaree fan ngay fajoo ak nan lañ lay fajee tey sénégalais yi am lu leen leer ci feebar bi gën nañoo bari bu baax a baax baax. Mm-hmm. moo tax nguur gi ne léegi kon yéen nga xam ne jàng ngeen feebar bi yéen ngeen xam ne am na loolu mën a def ngir euh, ñu gën a mën a xeex feebar bi ak doole équipe boobu en moom la nguur gi yokk kon li ñu ubbi buntu bi nii mooy pour yokk doole bi ñu xeex Sénégal di xeexee jàngoro bi waaye wax dëgg fa yàlla njiit yi moom mosu ñoo woote. mosu ñoo wax. Euh, pour nañu waay fal pour woyofal wala pour pour pour pour pour bayeeku. Mhm. déedéet. dañoo ne ñi nelaw. Mhm. yeewu leen jóg leen taxaw ndax nag réew bi pour mu dox koom-koom bi moo koy doxal. dëgg la waaye koom-koom bi kan bi kan la mais mooy yow. mooy man mooy nit ñee koy doxal. Mhm. kon yàlla ñu yàlla may wér-gu-yaram ndax mën a koom-koomu réew Sénégal bi baax na ce que lii yëpp docteur ci lu gàtt rek mën nañu cee jàngat ne kon mënees naa dund ak doomu jàngoro ji euh, man su nekkee docteur du ma nangu ak doomu jàngoro dama koy xeex hmm. euh, te suñuy kilifa loolu lañu sant xeex leen ak jàngoro bi comité national de gestion des épidémies dañoo toll ci fi nga xam ne dañu naan riposte maanaam nit dal suma kaw ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma bu ma ko ah def benn sorento suma diggante moom léegi nag ma ñëw ma song ko ma daan ko. président de la république ne force Covid ñu ngi am yaakaar bu baax ne fi Sénégal toll ak bi Sénégal gisee ne réew yi amoon jàngoro bi Chine France États-Unis Italie Espagne réew yooyu tey dem nañu ba. am lu ñu def ba mën a sauver seen population ndax ñu mën a dellu ci liggéey Sénégal itam am am na doole moo tax président ne force Covid maanaam doole xeex jàngaro Covid. Mm. ñi feebar wër ak jàmm ñi feebarul ñu aar seen bopp dem ba foo xam ne ñu gis ko am jàngoro bi fii ci biir Sénégal waaye sax nañ dem ba koo xam ne. doomu jàngoro bi boppam dootuñu ko gis ci biir euh, euh, Sénégal. Mm-hmm. man loolu laa jàpp ne. Mm-hmm. moom la suñu njiit yi santaane te ñun ci loolu lañu la ñuy liggéey. Mhm. ci loolu la ñuy yëngu. jërëjëf docteur Barnabé Gningue yow la ñu doon dalal ci matinalu réew mi àndoon ci ak mbégte mu rëy fàttali ni yow sa xel dafa màcc ci wàllu santé publique nga jiite itam euh, programme national de lutte contre la tuberculose nekkoon it médecin chef euh, contrôle sanitaire aux frontières aériennes ñu ngi lay gërëm bu baax docteur Gningue. jërë ngeen jëfati bu baax a baax.